donte wax na ko waaye nag doxewu ko woon te waxewu ko woon te jëfewu ko woon ni yenente bi daan doxale te lii wéral sama wax jii su ngeen seetloo silsila bi jàll indil naa leen lu wér loo xam ni sax na ci moom mu doon ko def te yenent moom mbir yooyu yi daw ci def lenn waaw ci def lenn waaye nag ñu continuer rekk di ñëw di leen waxal naka la def ba not ba mbooloo topp ko loolu nag maa ngi wax nii yombul yombul de ndax mbooloo moom pour nga tënk seeni xel tënk seeni xalaat bañ topp la liggéey di la jox kooku moom képp ku ko def ah, jëflante naa ak jinne jaamu ne jinne ba jox ko mbir yooyu yi te nag su ma nee jinne ñoom xeet yooyu ñuy wax ay rawxaan ah, wala ay raafil ak i kayaafil comme ñoom niñ koy waxee di leen tudd ay tur yooyu yëpp rek ay shayatin dong lañu xeet yooyu kese ñooy indi mbir yu mel noonu yi kon may wéyal rek di leeral ni moom kon kilifa gi bu ngeen delloo ci ñuy wax ci moom maanaam ñi nga xamante ne dañuy def ay siira ci moom eh, sëriñ bi amoon na ay jinne yoo xam ni dañ koo gëmoon nga xam ni eh, am na juróom-ñaari jinne yoo xam ne moom wax nañ ni ay jullit lañ woon waaye rek dañoo jébblu doon murit waaw dañoo jébbalu ci sëriñ bi doon murit maanaam ay jullit lañ waaye nag eh, murit yooyu dañoo jébbalu doon murit waxaat nañ ni am na yeneen juróom yeneen juróom-ñaari jinne yoo xam ni ñoom ay yéefar lañ woon waaye sëriñ bi da leen a tuubal ba mu leen tuubalee jinne yooya daal di tuub eh, daal di E, e, nekk ay jullit doon ay murit te gis nga e, seen lépp ci juróom-ñaar rekk ci lay delloo waaw seen lépp ci juróom-ñaar lay doon beneen bi ci mooy li aju ci way ndara way ndara yooyu yu sëriñ bi yoroon way ndara yooyu nag eh, ay jinneey yi nga xam ne ñoo danoon junneey murit te jébbulu doon murit ay jullit lañu waaye ñoo jébbulu doon murit ñoo ko jox loolu waaye gis nga kon niñ leen féetalee maanaam dañoo jël jinne yi nga xam ni ñooy yeeñ wax ni ñooy ay jullit te wax ne ay murit lañ te wax nañ sax ni junne yooyu am na ñoo xam dañuy wax ni sax toppoon nañ yenente bi <laughs> ci seeni kii nee nañ nag ñoom tax ñoo ko jël jox ko uh, woye dara yooyee am secret yooyee am luñ ci def léegi bu fekkente ni dellu nga ci ñi nga xam ne dañuy def lu mel ni ak njabaraan am di def ay njabar yooyu dañ lay gëmal ni maanaam rawxaan ñoom ni ñuy wax ay ñoom ñu comme niñ ko tuddee ñoom niñ bëgg a def rawaan nee nañ euh, yoo xam ni nee nañ ci àjjana la ñu nekk waaw maanaam àjjana la ñu nekk waaye nag rawxaan yooyee ñoom dañoo saxal ni si turu rawxaan wu ci ne day dox ci turu yàlla waaw day dox ci turu yàlla maanaam rawxaan yooyee nekk ci àjjana nee nañ am na ci rawxaan yoo xam ni yi nga xam ne ña nekk ci àjj comme ni ñu koy waxee seenu tur day dox ci turu yàlla nga xam da nga koy boole comme exemple. Euh, amoon na génn góor ci jamonoy njibar doon na ma wax benn tur bu ñu ma wax saya jëkk siisun saya jëkk siisun turu rawxaan la waaye dañoo dafa wax ni ci sul arsil majid ci lay dox pour nga utiliser ko mu mu mu normal danga koy jaxase ak la nga xam ni mooy turu yàlla wa ñuy wax sul arsil majid kon say jëkk si sun wax nañ ni ci euh, euh, sul arsil majid bi ci lay dox gis nga comme niñ ko waxee <laughs> waaye loolu lépp rek sayaatin yi ñoom ñoo lënk seeni xel ba réeral leen ngir bëgg ñu jaamu leen Eh, ñu jaare ko ci eh, turu yàlla bu ko dee da ngay sikkar say jëkk siisul di sikkar eh, sul arsil majid boobu sul arsil majid bi nag turu yàlla ñu boole ko ci pour nga mën a rek nga xam du ci la pour nga mën a jaamu junne ji ñu mu gëlëmal say bët ñun la day day dox ci loolu waaw ñun la ñu ni la léegi turu rawxaan bu ci ne day dox ci turu yàlla waaye bu fekkente ni woon shayatin yi ñoo leen indi lool rek ni leen wax leen ay tur gaa yi dañ naan buñ ko vérifié mën naa am dañ naan lii kat moom wax dëgg yàlla moom bokkut ci waaye dañ dañ lay indil aw turu yàlla ak turu rawxaan bi ni la ci bii lay dox waaw boo xeelee nag ci xeeti jinne yooyu nga xam ne ñi ngi leen di ñi ngi nga xam ne baam yu siiw lañ say jëkk siisun boobu ci la bokk Mayros ci la bokk Samharos ci la bokk ah mooy Samharos Mayros Kandrosin jëkk siisun saye jëkk siisun am na yaa marwa am na yaa kay nuunu am na yaa kay naanu yooyu yëpp ay tur yu siiw lañ Euh, ñi nga xam sax dañuy yëngu ci mbirum asraar war nañoo mën a xam tur yooyu yi maanaam turu jinne yooyu muy say jëkk siisu nag mayroos ak kandroos ak euh, samharoos yi nag ñooy yépp ci ay xeeti kii la <laughs> jinne la waaye yooyu yëpp rek euh, ñoom ñoo ko tuddee ay jinne lañ ay rawaxaan lañ waaye dañ koy naan kayaa kayaafiil ak raafil ak di leen tudde ay tur yooyu yëpp yoo xam yëpp waaye rek yëpp rek shayatin yi rek nag yëpp doomi iblis la ñu su sa bi ñoo leen kii rek kon yooyu nga jëflanteeg ñoom ñu lay indil ay way ndara di la jox ay secret pour nga not te ñoom e, rawaxaan yooyu ñooy joxe secret yooyu te alxadimu amoon na ay li nga xam ne mooy ay way ndara te way ndara yi ci ci ñooñu ci lay jóge waaw ci ci ci ci ci ci ci ci ñu tuddee ay rawxaan eh, ak kayaaf yi rek ci ci yooyu ci la ñuy jóge léegi dafa amoon génn góor gu ñuy wax njaga coy déglu leen lii ma leen di wax eh, mi ngi dëkk ci kaarang boo demee ba kaarang nga wax dem dëkk ba ñu wax Touba anglais njaga coy moomu ab asraar ab kiika la ab jabarkat la waaye dafa bokkoon ku jige sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Mbàkke Soxna Lo may na ko vingt millions ak ñaari oto moom njaga coy moom yi ndax nee na da daan jëflanteeg sëñ Mbàkke soxna da ko daan duggal xalwa moom moo may nettali ni ma boo gisee sëñ Mbàkke soxna loo bari xaalis lool mun ma dinaa la wax loo xam ni eh, ni sëriñ bi dafa amoon jinne yoo xam ni dañoo doonoon ay murit jébbalu ci moom dañ koo joxoon ay secret yoo xam ni ni ko nag soo ko jëfandikoo way ndare yi boo ko jëfandikoo nii loo laaj rek ci xaalis euh, taalibe yi dina leen ko dajaleel loole leen rek dañ leen ko dajaleel te loolee nee na way ndara woowa nag bi sëñ bi génnee àddina euh, dafa am nuñ ko dondante ba ni mu egsee way ndara we nag dafa réeroon waaye góor googu nee na moo ko feeñal te góor gi moo ma nekk xesta bi waaye nag li tax ma li tax duma ma weddil góor gi euh, kii am na ñoo xam sax boo ko leen ko waxee dañ naan góor gi daa bëgg a siiw nangam nangam waaye bu ko sëñ Mbàkke mayul woon vingt million ak oto ya kon dama naan loolu du dëgg waaye vingt million yi moom nangu nañ ñu wér moom moom sëñ Mbàkke soxna lu ko may waaw vingt millions yi ak oto yi war na ma oto yi yépp te it doomi sëñ Mbàkke yi dañuy xaritoog ñoom wólla rek ñoom kon ma xam moo xam ni góor gi <laughs> wax na dëgg waaw Euh, bu ko defee kon euh, loolu rek day wéral ci sama wax ji ni sëriñ bi ni def ba not kon jëflante naag li nga xam ni mooy ay jinne xam naa dinañ ci def ay leeral yu bari euh, jinne yi nga xamante ni wax nañu ni ay murit lañ teñ jéblu woon ci moom mooy ca wiir wiir jinne jooju nag euh, nga xam ni seen njiit euh, la nga xam ni euh, mooy mooy nóoru tamtiir mooy mooy mooy seen kilifa moo nekkoon kilifa yu junne yooyu juróom-ñaari junne yooyu moo tax ñoom tax nañ ko dañ dañ leen di bind ci téere yi waaw turi junne yooyee ñi ngi tudd kakkurakku makkurakku kalliiru kakkiiru nabbayoro nuuru tamtiir ñooñu ñooy ñi jaayante woon ak moom ca wiir wiir jébbalu ci moom ñoom sax ñu ngi koy wax ci seen siira yi ba ñu dikkee ni ko kabro bii kabro baa loolu lañ ko waaj euh, loolo nag ca lañ ko doon wax ca làkk yooyee dañ dañ ñu ni dañoo wax ni dañ dañu ko yow looy def fii looy dundee nee na sëriñ bi ni leen man dey dunda ngi ci biir dundu comme nañ koy waxee nga xam ni seen jàngkat yi sax da ngay dégg ñu naan kabro bee kabro baa nee nañ seex bi neen ni leen wamin dijjin kaa suma attaa tub tub lëm lëm comme niñ koy wax <laughs> Cheikh Bamba déggi junne lii daan nga xam ni daal mi ngi noonu nga xam ni noonu la leen tontu kon loolu siiw na nee nañ junne yooyu ñoo nekk junne yi murit waaye nag jinne yii nga xamante ni sii ñoom ay yéefar lañu woon waaye sëriñ bee leen tuubal ca fanoo wax galwaa te man junne yooyu déggaat naa sax ci yeneen siira ñoom junne yooyu ñu ni sëriñ bee leen tuubal déggaat naa ci ñeneen ñuy waxtaan ci mbirum junne yooyu ci seeni xista di wax koo xam ni moo magee sëriñ bi lu yàgg te jinne yooyu ñu ngi tudd dan sooya mari sooya ak dan makk dan jaariyen kay karaa sub day karaa yooyu juróom-ñaari junne la yoo xam ne wax nañ ni sëriñ bi moo leen tuubal def leen ay murit ca bërëb ba ñuy wax galwaa xoolal eh, <laughs> yéen lim fee ak yii te lii may wax nii Euh, benn waay moo amee woon benn téere téere boo xam ni ak njabar la ña ngi ko liggéey ca dëkk ba ñu wax Beirut lii may wax nii te téere ba Beirut lañ ko liggéeyee naa ab naaru libane moo ko liggéey te tur te ca am na benn xaatim boo xam ne tur tur yooyu ma wax tur yooyu ma tudd ñanga ca xëy na kon euh, junne yooyu dañoo xam nga junne daa mën a gudd fan xëy na kon dañoo ñëw jébbalu ci sëriñ bi waaye daal téere booba bañ ko defaree léegi la ma waaj a wax ci gëstu mage na euh, kilifa gi ñeenti téeméeri at te booba téere booba mbir mbirum junne yooyu junne yooyu yu ma lim noonu ña nga ca seeni tura nga ca ginnaaw bi ñoom ci seeni nettalikat ñu tuddaat jinne yi may wax nii muy muy muy muy muy muy dan sooya ak mari sooya ak dan makk dan jaariyan daa kay karaa subb day karaa ñu wax nii te it boo demee ci yeneen bërëb tax ci xeet yoo jinne yooyu maa ngi leen di dégg ci yeneeni mbir yoo xam ni ñi ngi ci kii waaye ñoom akimoo nañ ko waaw ci lu aju ci mbirum jinne yi àndoon ak sëñ bi rek comme ni ma ci bëgg a tënk xam naa ni bu ma toppee mbirum jinne yi day gudd waaye nga xam ni rek sëriñ bi kon jinne yi ma tudd nii lu wér a wér a wér wax nañ ne ànd na ànd na ànd naa ak ñoom te sëñ bi amoon na ay way nda amoon na aw way ndara te way ndara ku ne xam ne di jinne moo koy joxe benn waay nag dafay wax ni jinne mën mënta joxe mbooloo aha kay jinne yi eh, yooyu xeeti sayaatiin lañ ndax yàlla da leen a dooleel ndax dañu daan dem ci kaw ci asamaan bi di déglu ji ay ay ay kii ay xabaar waaw ñu leen di sànni ay ay kii ay jum dañ daan def nag bu ñu dégloo bu ñu déggee lu ñëwee rek nettaliwaat ko sayaatin yooyu lu ñëw nettali ko jabarkat yi ñu nettaliwaat ko nit ñi léegi nag euh, yàlla dafay def nag léeg-léegi bu ñu demee ñu rëng-rëngee seeni xel ba bu ñu dikkee dañuy dañuy day mboolem lañ xaman dañ koy fàtte ba tax na sax ñoom ci njabarkat yi dañuy wax sax dañ naan jinne <laughs> maanaam xam na la xew suba maanaam comme noonu lañ ko bëgg a wax dañ naan xam na la xew suba waaye lim passé da koy fàtte maanaam bëgg koo jox ab kiimaan fekk booba mooy buñ demee déglu ji ñu rëng-rëngee seen xel bañ jikkee rek fàtte waaye jinne moom mi ngi noonu ndax bu ñu xamoon xëy bu sax bu bañ ci xista Suleymaan bi eh, war na ñoo xam ne ñoom donte sax kiwoon nañ ko waaye eh, mi ngi noonu ay sayaatin rek yu ñu àndaloon lañ waaye téewul eh, daa dañu déglu ji di andi waaye nag bu ñu rëng-rëngee seen xel bu njëkkee lu ñu waxoon dañ koy fàtte daanaka moo tax ab gisaanikat bu lay wax bu la waxee génn génn dëgg tandeen ba wax génn dëgg wax la fukki fen ku ne xam na ko ndax daanaka yëngu nañ ci waaye nag maa ngi wax ni dafa am nag ci wàllu sëriñ ngeen bàyyi ci xel sëriñ bi yor ay jinne kii kii jëflanteeg ay jinne boobu yombul boobu yombul ndax li ma wax foog nga jaamu jinne te da koy ñime boobu bokkul ak sëriñ bi nga xamante ni kii moom daa dëgëru fit rek moom du kiiwut waaye day bind ay daa daa jàng rek alxuraan nga ñëw mu mu sëpp daa comme mi ngi mel ni tey nga dikk ni ko wërsëg laa bëgg mu bindal la allahu latifu bi ibaad yi yarsuxu man saa woowal xawil asis tolloog naag kii mun la mu jël ab aaya bu tolloog kii rek jox la nga sangoo waaw <laughs> wala yenn saa yi nga dem ci moom ni dama euh, bëgg dara comme daal mu mu jël ab aaya bu toloog rek bu tollook loola rek luy wax ci mu bindal la kooka moom mënta jaa xamut ay jinne xamut dara daa am xalima rek lay yor kooku moom daanaka moom boo waxee ma damay ñaan waaye ki sëriñ bi garaaw nag kiy jaamu junne di jëflante jinne kooku mooy def ay karaama moo kon moo tax karaama du caaxaan karaama du caaxaan ndax man mii karaamatul xay nii doon naa ko jàng waaye lañ ma ca wax diis na lool de wallahi billahi wallahi kon mu karaama pour nga man ko yombut li ma leen wax fokk nga jaamu jinne ndax doon naa ko jàngi wante lañ ma cay wax ni ma nga jëfandikoo nga def ko loola duma ko ñemee wallahi la asim xalaatuma ko sax ndax ñemewuma ko am na ci loo xam ni ci armeel lañ ma lañ ma wax donte sax bëggoon naa koo man waaye jamono yooyee li tax ma ragal koo def damaa ñimewut ci ar damaa ñimewut ci armeel yi guddi ñimewuma fa loolu rek moo moo moo gàllankooroon mu def ko te am na koo xamante ni ci ba ma ko yoxee ma ba mu dikkee ni ma moom da koo bëgg a man ma ni ko man day joxan nañ ma mbir nañ koy defee waaye man ñimewuma ko kooka dem na ba bañ amu fitu def ko ñëw man ko ba nii may waxee ak ñëw man ko di ko def ci sama kanam ma di ko gis yàlla na ma yàlla jéggal yàlla na ma yàlla jéggal euh, musiba bala baaxul euh, aw fitam àgg na ca ba di ko def waaye man ca jamono booba nag la tax ñimewuma ko armeel ya ma waroon na dem def fa la ma fay def moo tax te man ñimewuma armé di guddi loola moo te ma man karamatul hay ni waaye kon dama koy man kon yëngu naa ci xam naa lan mooy li aju ci yilif mbooloo ak di def ay karamatul hay nii kon sëriñ bi eh, yor na ay way ndara kon jaxasoo ko naa ki jinne xam naa dañuy bàyyi ba beneen yoon incha allah ñu ñëw leeral di jéggulu ci guddaay bi waaye pour li ma ci jubloo leeral rek ngeen xam ni kon mbooloo moomu mu not du caaxaan euh, assalaamu aleykum wa